journaliste bi moo may dagg te tey jii nii mun naa toog fii pendant deux heures trois heures quatre heures de temps mhm. di détailler bilan wu président de la république mhm. te duñ fi jógee donc loolu day wane ne rek mhm. chaque jour ñoo ngi liggéey parce que imaginez treize conseils des ministres nga génnee lu toll ci deux cent vingt sept directives c'est beaucoup ñi amuñu noppale xoolal ma jox la benn exemple 3 avril hmm. président adresse à la nation bi mu ko defee 5 avril premier ministre def euh, kii bi former gouvernement am automatiquement 30 avril ñu commencé publier da ngay gis affaire bi dafay teglanto nga jël le premier mai mercredi premier mai président def descente mbuurkat mhm. ñombe ba fa newoon ba premier ministre bi damay Anse Bernard nee na nanguwaat nañu toll ci soixante dix mille et euh, soixante dix mille parcelles d' ailleurs commission ad bi nga xam ni moo waroon saytu suuf si naka lañ ko séddalee. Mhm. rendre na rapport am samedi 11 juillet. donc da xool président ak mhm. premier ministre yi. Mhm. dañoo noppalewul benn yoon noppalekuwuñu te loolu day firnde rek dañoo xër ci liggéey bi. bëgg soppi Sénégal. d' accord Djibril alors nañ gën a yaatal ci loolu peut ci kanam alors Ousmane tey président de la République. Euh, trois mois ci bopp réew bu Sénégal téeméeri fan mu amal benn discours nee na woyoo ko bilan mais c'est juste que mënul dem à l'étranger di waxtaan ak presse boobu ci jox ko bu Sénégal tey sur le fond ak dans la forme bu doon wax son discours nan nga ko gisee jàpp nga ne jaar na yoon wala y a des failles wala lu opposition wax kani dara baaxu ci nan nga gisee mbir mi. waaw xam nga euh, wax dëgg yàlla man bu bu ma waxee rek. Euh, mm-hmm. par rapport ak si fond bi nga xam ne si le président defee discours bi. dama naan discours la boo xam ne. Mm-hmm. discours. bu dëggu la. maanaam un discours véridique. boo xam ne dafay jàkkaarloo ak sénégalais yi. Mhm. di leen wax li nga xam ne moom moo am. Mhm. sans mu wut loo xamante dafay neex nit ñi wala lu naqari nit ñi loolu côté boobu man d'accord naa si gis naa ko. Mhm. wax dëgg yàlla te gis naa ne tontu na si question yu bëri. xëy na nag euh, sama classe gi li leen gën a yitteel. mooy wàllu justice bi. Eh, te souvent président daf koy ah. parce que tamit wax dëgg yàlla mënuñu gis nga gis nga man boo gisee ma fay sonn si affaire justice bi parce que Sénégal li ñu daj dafa metti Sénégal dañu xeex diggante avant deux mille vingt et mais surtout diggante deux mille vingt et un ba deux mille vingt quatre. plus de quatre vingt personnes. ñu rey leen si ñoo xam ne dañ ñàkk seen bakkan mm-hmm. am ñoo xam ne dañu daw dem jël gaal gi ba far deewee fa am ñoo xamante ni nii dañ ne dañu disparaître ay mm-hmm. militaire Mm. am ñoo xamante ni nii donc seen liggéey yàqu na am ñoo xam ne seen famille tas na am ñoo xamante ni nii ñàkk nañ lu nekk seen mm. liggéey ak lépp yàqu na mm-hmm. léegi ñooñu nag bu fekkee ne am nañ nguur gu bees te ñooñu ñoo doon xeex pour que fal guvernement boobu noonu man gëw ma ne dañu war a ñëw rek naa ñu noo c'est que justice ni muy doxee ak ni politique doxee du benn mais man dama gëm ne actuellement ni ñu toll nii nii nii gis nga avant sax ñuy wax affaire mooree ak affaire yeneen ak parce que loolu d'accord naa nga ne loi amnistie moom moo ko couvrir te mënoo koo Euh, abrogé woo li nga xam ne moom mooy loi amnistie bi d' accord naa su boobu noonu. mais rapport yi nga xamante ne nii dañ ko publier parce que président bi mu njëkkee lan la lan la njëkk a wax mooy que ne nañu publier rapport yi. OFNAC tey jii am na 45 rapport yoo xamante ne nii mi ngi si table procureur waxuma la président de mu si teg concam de mi ngi si table procureur. Hmm. procureur da lay xaar pour def instruction dossier yooyu noonu. mais hmm. kenn wax dëgg yàlla si dëkk bu sérieux mhm. ñu ne dañu nekk si dëkk boo xam dëkk bi dafa sérieux mhm. ñu ne ay nit dañ leen a épinglé waxuñu dañu sàcc de dañ leen a épinglé parce que dañ leen mhm. topp dossier bi ñu xool fan la def xaalis boobu noonu mais président nee nga may wax foofu président nee na fan ñu dëgg ma dinañ def conseil supérieur de la magistrature est-ce que loolu la xaar ngir entamer léegi waaw xam nga non xam nga xam nga d'accord naa parce fois booy wax ci procureur yi wala ñi xam ñoom ministre d'instruction yi ñooñu aussi mënuñ leen a jële fa ñu nekk mm-hmm. fekk conseil supérieur de la magistrature amul mm-hmm. mais aussi tamit man mën naa ko comprendre parce que wax dëgg yàlla man personnellement dama la koy wax parce que je suis à l'aise dama koy wax quoi aw ma nag benn benn benn affaire personnelle mm-hmm. mais ku mel ni procureur Abdou Karim Diop mais bu continuer di nekk procureur de la République bu Sénégal parce que y a problème man doo war na mën na topp ñi nga xam ne ñoom la fi nekk doon mais di def le sale boulot. dafa war a nga jàpp mais bien sûr bien sûr procureur Abdou Karim Diop waratul wëy di nekk procureur de la République. les premiers juges cabinet Maam Diallo wartul nekk di di di jiite fi nga xam ne mooy premier juge cabinet mm-hmm. parce que gis nga nañu waxante dëgg gis nga dëkk bi bu tàkkee mm-hmm. parce que si seen loxo la jaar pour tàkk mm-hmm. parce que ñoom ñoo fi nekkoon yor ay dossiers yoo xamante ni nii xam nañ neen ba mu leen leen nañ ne dossiers yi ñu yor nii ay dossiers ay fenu neen la ay dossiers yoo xam ne waroo si sax yóbbu nit fi nga xam ne moom mooy commissariat nga yóbbu ko si mandat de dépôt sans pitié. Mhm. maanaam doon ñëw si si placer le mandat de dépôt mais bu la koy placer voilà dafay nekk à l'aise da ngay ñëw mu ne la yow kat léegi la lay toppee loo si def nga ne ko non man defuma ko mu ne la ah mais finalement procureur dafa viser article 139 donc da ngay da ngay dem. Mhm. parce que procureur am na doole bu toll ni bu viser article 139. Mhm. wala boo demee si code de procédure pénale li commencé article 55 ba ba 100 euh, article bu mu si toppee rek. les mandats de dépôt est moom moom lañ doon woowee les mandats de dépôt systémique mhm. parce boobu bu ñu si visé mandat de dépôt obligatoire mhm. léegi nag pour man mënuñu nekk si dëkk bi ñu rey ay nit mhm. d'accord naa loi amnistie bi faaw ñu abrogé ko mais rapport yi nga xam ne publier nañu ko ñooñu progrès daf leen a war a topp bërki démb yaa ngi dégg ay coowal coowal un milliard diggante ay Lat Diop ak directeur am dafa nekkoon mu naan ay jox na ko valise boo xam ne un milliard la defoon donc ne ko ma ko sa kër mais nga yaakaar ne bu doon jamonoy Macky Sall la ñu ne dañu dégg ne benn opposant moom moo ko def. Mhm. ñu ne dégg nañ ne Ousmane Sonko yoroon na val euh, valise boo xam ne 500 moo fa nekkoon nga yaakaar ne Macky Sall dina ko bàyyi mu fanaan këram. procureur bu xëyee daf koy woolu laaj ko 500 millions yi fan la jaar. mais fii ngay dégg ñu naan la joxoon nañ ma valise 1 milliard ba léegi mujjul fenn. Mhm. directeur kudd bi dégg nga ko dégg nga ko démb si sot bi mu def sur euh, sur benn benn média jot na TV. Mhm. mais mais li mu wax du garaaw la wax. ñoo xam ne dañ leen doon fay si convention yi nga xam ne dañ doon signé ak média bi plus de deux cent quarante six convention mhm. mu ne am na ñoo xamante ni ni dañ leen a tuddee comme ay média di leen fay chaque weer dix millions ñii cinq millions mhm. te nee na turu média yooyu sax existé wul boo ko xoolee si internet doo ko gis te amul amul Sénégal mhm. ñoo xam ne ay page Facebook lañ yoroon nee na ñoo nee gis na média yoo xam ne ñoo ñooñu duñu ay média mais ay page leen di fay chaque weer cinq millions nga xam ne moom mooy Abdoulaye Seydou Sow ba mu fa jógee kañ la woon mais deux mille dix deux mille ba deux mille vingt et un dañu di ko fay Cheikh Omar Anne noonu. Mm-hmm. mais mais nga gis loolu noonu am si réew. Mm-hmm. scandale yooyu noonu am. pour man waruñu taxaw naan ñu non c'est que justice ni muy doxee dafa yeex mm-hmm. doxinu justice ak doxinu kii man li ma gëm mooy mm-hmm. li ma gëm mooy mm-hmm. gis nga dëkk bi actuellement sénégalais yi xam nga lan la ñu gën a soxla actuellement nii mooy que ne justice mu def liggéeyam donte ne nag waxuma nag ne loolu lañ soxla rek li ci def dafa bon de déedéet parce que wàññi dund c'est bien beau parce que boo wàññee dund gi mooy yaa ngi teggil sa yenn borom kër yi nga xamante dañu xëy di di góorgóorlu boo déggee boo déggee sa kàddu kon sorti président ñu di campé euh, côté justice amoo ci satisfaction non vraiment satisfaction quoi parce que parce que voilà parce que man xëy na président li ma wax parce que nag wax dëgg yàlla. Hmm. man personnellement président Bassirou Diomaye Faye donc dama ko gëm dafa nekk nit bu ma naw comme ni ma nawee Ousmane Sonko donte ne Ousmane Sonko laa gën a miin. mais président Diomaye dañ doon wàcc si bi. ma ngay hmm. gis si manifestation yi. Hmm. may ma diglu discours am xam ne kii nit ku dëggu la nit la koo xam ne aussi tamit.

daa amul satisfaction quoi. mais li des yëpp ça va quoi. baax na incha allah naa dikkaat alors peut-être Djibril bokk ci coalition Diomaye dañoo mën édifier ci ponk boobu Djibril gis nañ Ousmane li muy wàllum justice euh, il n'a pas été bon il n'est pas content ci posture président. Hmm. daf ko coftu daf ko laal tuuti tey bu ma ko doon campé ci conseil supérieur de la xam ne fa la lépp di xewee. Hmm. président ñii ne nan day des ci biir ñii ne day hmm. génn bu génnee tey am na ko dégg naa benn a koo far tey li kii nekk ancien détenu tey bu ma juumul bokkal la ci ñu jàppoon absolument jooytu na côté justice bi tey lan moo war a nekk seen taxawaay ba wax dëgg yàlla satisfaction am ndax kàddu gi ñëpp xam muy dëgg mooy Sonko ak Diomaye bu ñu jiitee cinq ans ci fa ñu justice bu Sénégal Sénégal du leen ko mm-hmm. Moussa Ba ndax li mm-hmm. a mm-hmm. a nga xam ni victime yi njëkk mun naa ne président ci la bokk mm. ndax tëj nañ ko kaso oui absolument premier ministre ci la bokk tëj nañ ko kaso mm-hmm. Fadilou Keita bi nekk caisse des dépôts et consignation jaay nañ ko doole tëj ko presque ñaari atu kaso ça rey nañ fi euh, Didier Badji mm-hmm. Fulbert mm-hmm. donc su rapport Amnesty bu deux mille vingt vingt quatre bi nee na rey nañ lu toll ci plus de soixante personnes. Mhm. ak plus de mille détenus politiques. absolument loolu kenn mënu ko baale. te soixante personnes yooyu sax lu officiel la lu néew la jàppal ne la dernière fois gis na image bi ma gën a métti. mooy mooy manifestation bi mu amee buntu parcelle mooy diggante euh, rond point euh, vingt six. rond point croisement vingt deux. Hmm. policier boobu ñoo ngi gis. mu dóor xale bi mu daanu. loolu kenn mënu ko baale. Hmm. léegi nag président dafa nekk ci xam nga bu fekkee dañ ne séparation des pouvoirs. ñu ne léegi parce que dafa bokk ci programme coalition Diomaye ñu ne séparation des pouvoirs dañ ko war a